asalaamaaleykum wa rahmatullah taxala wa baraka ñu ngi sant yàlla di julli ci sangab binde fi Seydina Muhammad di jaajëfal xaadib rasul di am lu ñuy yëg li muy xew-xew bii xew ci ndigal li nga xamante ne bii jot nañ ko ci suñu kilifa gi ñu Cheikh Abdul Barak ñu wax ne ñu ngi tënk ko ci ndigal ndigal daal ci la gont ci la ñuy xëy xas nañ yéene bis bi nga xamante ne bi moom la ñuy dëgmal te di ko defal Cheikh Mouhamadul Amin suñu wàccuwaay suñu wéeruwaay ci Cheikh Mouhamadul Fadal ñu digal mboolem suñu bokki taalibe yépp ku si nekk rek foo mën a nekk ci muy biir réew mi ak bitim réew mën ngaa ñaanal Cheikh Mouhamadul Amin fa nga nekk ñaanal ko yàlla yokk ay xéwalam fa mu nekk maa ngi digal ñi nga xamante ne ñoo bokk kër gi te tënku ci suñu digal ñu fas yéene ñaan ci yàlla toroxlu lii nga xamante ne moo xew ci réew bi yàlla teggi ko ndax yàlla mën na ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah